ñoo xiif dañoo mar nañu dimbali ngir yàlla ay sëfoor lañu nañu dee ñu ngi nii ay sëfoor lañu dañu xëy duñu nekk suñ doom yaa ngi duñu lekk duñu mar waaw nañu bàyyi ñu dawal ñu sëfoor maa fate sama kax bi 6 heures du matin ba léegi maa ngi yeewu ni ci tali bi 3 mois nga tëdd ko ci kër gi lekkoo naanoo dañ ñuy jàppale dañ ñuy jàppale te jàppale bi gisaguñu ko danoo soon danoo maar danoo tàyyi ah, bu dee maire yi nga xam ne yaa ne ci kaw tali bi di xëy daan seen doole waa Njaxate ñi fiy jaay peñe ànd xaw ndox mu sedd gisatuñu kenn ku ñu jaay danoo sonn. dina xaw a métti lool am nga ma crédit ma jëmee def direct. Vamos えっ